trois fois par la par semaine 30 minutes au moins donc y l'organisation mondiale de la santé recommande vous faites de l'activité physique 150 minutes par semaine donc moi trois fois par semaine donc l'organisation mondiale de la santé recommande quest ku que def régulièrement il y a vraiment fièvre am donc fièvre donc moy maladie yi nga diabète ay hypertension ay cancer donc y booy def sport dina la si dimbale bu baax a baax a baax. ñu organiser lii coach Taba c'est pas la première fois defoon nañ fi benn show boo xam ne nii daf ma neexoon trop euh, di gërëm tamit docteur ak autorité comme ni nga ko waxee autorité yi nga xam ne ñu ngi fi yëpp gis nañ leen ñu ñëw discrètement je pense que sport mooy li mën a boole ay nit. Euh, Kaolack kenn ku ne yaa mën a defar sa dëkk. ndax damay bi may dox ci mbedd mi léegi maa ngi wax sans benn xarit ma ne ko sincèrement engagement yi nga xam ne nii man danaa ko jël mooy Kaolack dañu war a fexe au moins début bi deux ans après centre ville bi waratuñ fi gis suuf mu ne ma yu c'est difficile ma ne ko xoolal miiru clôture bu ne miir ba moo gën a cher dale foofu ba ci tali bi te lu sa kër rafet rafet te kuy dugg sa kër di dajeeg ay ay ay ay ay mbalit ay lépp doo am fierté et je pense que li gën a yomb li gën a jafe la ñuy def fekk li gën a yomb ndax suuf si espace bi kër yi utilisé moo ëpp 20 fois espace mbedd mi kër yi doo fa dugg fekk fa mbalit ak lu kër néew néew doole mais soo fekkee soo xoolee ci kanamam mu mel ne ab sën la je pense que loolu man je compte sur vous je pense que tey amuñ obligation pour war ko def amuñ Euh, amul prérogative pour war ko def bu ñu ko doon def tamit mën naa am ñu indil ñu ci problème mais je compte sur vous pour à l' avenir ñu jóg defar ko utiliser dimbal na ci fekk loxol borom kenn ku ne boo balee sa buntu kër balewaale sa mbedd defar sa kër dëkk bi normal. lii tamit ngeen def ñu faral ko Kaolack bari na loo xam ne fi la juddoo dañ koo bàyyi. ambition dans 10 ans, Sénégal y fait les gagner. Je suis prêt à nous dégager l'or. Sénégal, il y a journée de marathon. Parce que le centre, Sénégal, il y a un fin centre. Il y a à moyen de 2h, 3h de Dakar, il y a il y 80% de la population sénégal bolen wowon ci kaolak infrastructure yi taxaw à 1h 2h ñep mën nañ fi dajé kon je pense que capacité bobu ñu am dañ ko wara utiliser bu baax li docteur wax tamit ci santé dafa am solo man je pense que euh, dañ soo gisee réew yi développé yëpp dañuy rendre euh, armée obligatoire ndax armée boo ci jaaree boo paree forcément da nga continuer def si espoir parce que da ngay gis njariñ li wala boo ko deful feebar je pense que ñun tamit loolu dañ ko war a continuer de te lii espoir légère la mettiwul mag mën na ko def xale mën na ko def te daf ñuy boole comme ni leen wax gudd fan moo ëpp solo ci lépp gis nga Sëriñ Tuubaa day wax ne ñi génn àdduna yàlla na yeex ci ñun koo ko fekk na ko pëkk pëkkal loo gën a bëgg ci àdduna du ne gis yàlla de loo gën a bëgg tey danaan la dellu àdduna nga ne lan mu ne même bu dee benn sang ma dund ko fa jaamuwaat fa yàlla gis fa samay mbokk kon je pense que ñi ñi génn àdduna loolu leen manqué ñun ñu fi nekk buñ ko amee participer ci yii dox ànd dem waxtaan ci yoon wi ñëw bokk dara neex na trop vraiment man maa ngi lay remercier du yéen a ma war a remercier remercier wax ne à chaque fois ngeen bëgg def yégal len ma buma bu voyage sax dama koy dama koy fomm et inshallah allah ba nga xamné ni wa waa yépp yëpp fi dajale mu nekk journée bo xamné ni dana gëna man lool merci beaucoup jërë